général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nag ci dimanche fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu génn nag demoon na daal di seeti fi nga xam ne moom moo di bërëbu footballukaay bi di stade bu Mbacké ànd ak Serigne Moussa Nawel mbir mu ni mel nag daal di yéem ñu bëri ci askan wi loolu nag li tax xalifa général daal di koy def moom moo di stade bu Mbacké bilee dafa dend ak bërëb bi nga xam ne nii fi la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim gane jamono waaye itam dend ak armée li mbusoobe yi nga xam ne nii ay kilifa yu takkoo takku ñu nga fa daal di tëdd loolu nag nekkoon mbir moo xam ne nii yàggeef na ko jooytu yàggeef na ko seetlu ñu di ko ñaawlu tam ci ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gàllu ci famille Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye itam ci njabootuk Maam Mor Jaara Mbàkke ginnaaw bi sëriñ bi ñëwee nag daal dinañ déglu ki nga xam ne moom moo di sëriñ Moustapha Ndiaté Mbacké moom kilifa gi di yëkkati ay kàddu di fësal ni daal ñoom daanaka bu fi futbal amee day doon mbir moo xam ne ni day naqari ci seen xol lool ndax ci biir at mi yëpp ay nawetaan daf fi am ak i foot match de football yoo xam ne ni daanaka bu ñu dóoree bal bi daa mel ni ci biir armée li la ñuy daal di amee li nga xam ne moo di football boobule te mbir moomu lee nekk lu ñu yàgg ñaawlu. barab digga mag raay bi ci la Sëriñ Tuubaa gane àdduna lii mooy kër gi mu njëkk am ci àdduna moomal ko boppam ba mu jógee Kajoor fi la njëkk sañ ci dëkk fi fi la jógee dem Daaru armeel yu mag yi mag ñi daa denc mag ñi mi ngi nii bi sëñ Mbàkke Moor ak sëñ bu sooy bi ña nga fee seen diggante nag powukaay xaju si na bëggoon nag lépp luy tax pami mën fee toxoo su mënee am nga ñaan ko ñu ngi ko war a ñaan waaw waaw sëriñ bi mbàkki gii fi la sëñ a gane àdduna keroog ba ko demee améri ngi a dee la joxe maam maaram 1712 ba maaram taxawee fii di léemu di léemu dafa mu léemu ba noppi daana taranga ndaba taranga li ma sama borom di taajal day fii ci mbakki lay feeña su bu feeñee ñëpp danañ ci mën a yor seen loxo te ndab la du jeex te ndab li yoo suur bi kon nag ni la sëñ bi ittee la dara ñërul lu tax sëñ bi am ndam ci lépp lu te am na ko ndam bu yàgg waaye luy tax ndamam li saa su ne mooy siite lii de ci la bokk. moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di métit waaye itam di fësal métit gi nga xam ne nii am na ko ci mbir mu ni mel di wax ne ba sax yëkkati ay kàddu di fësal ne tey jii la yàlla dogal mbir mu ni mel war a dakk ginnaaw bu mu jógee ca sat ba nag jàll ca mairie bu Mbacké daal di dem ci ki nga xam ne moom moo di Abdou Mbacké Ndaw jox ko ndigal ngir mu daal di yëkkati waaye itam daal di tuxal li nga xam ne moom moo di stade boobu ci bërëb bi nga xam ne nii ci la di nekk ginnaaw bu moom maire bu Mbacké di Abdou Mbacké Ndaw ma ngay fësal ne dañ dañu wootee ngir daal di waxtaan digal loolu nga xam ne nii moom la xalif général des mourides daal di joxe ci lu jëm ci stade bu Mbàkke bi ci ab fàttali mbooleem ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Mbàkke boobu ba nëgën ñi ngi daw ci ginnaaw ab stade boo xam ne nii daañ fa mën a amal ay xeeti tàggat yaram yu takkoo takku waaye ba nëgën yi àll ngi ne seen ndaw ay dige dong la ñu fiy amal ki nga xam ne moom moo di mataar Ba bu yàggul dara dige woon na ni liggéey yi jëm ci beneen stade bu bees bi daañu ko door mais ba nëgën yi loolu le kenn xamaatu ci dara